muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yéen li ñu sosoon ak yéen ci yonent bu tedd bu sell bi ak mayam yu foor yu màgg yu tedd yi suñu borom subhanahu wa taala jagleel ko ko mu tollook juróom benn fukki may ak ñett tolloog juróom benn fukki ak ñett yim dund ma tuddaloon la ci ñaar démb bi ci njëkk moo doon moo mag ku yàlla moo fi jiitu lépp lépp luy mindeef rek yonantu bi moo ko fi jiitu sallallahu alayhi wa sallama ñaareel bi yonantu bu tedd bu sell boobu tamit lépp loo fi gis mu soqeekoo fi rek mu ngi soqeekoo ca leeram ga waxoon naa la ko tabaarakallaahu bu taxutoon ak moom yàlla du amal dara ci am ak yonantu bi ci la aadama amee ak doomu aadama yi ci la asamaan amee ak lim ëmb ci la suuf amee ak lim ëmb ci la aras ak kursiyu ak lawhul mahfuus ak li ci aju lépp ci am ak yonantu bi ci la loola amee yonantu bi yàlla wax ko dëggal loola ci hadisul qudsiyu ci xalaxtuka min ajli wa xalaqtul xalqa li ajlika bind naa mbindeef yépp ngir yow yow ma bind la ngir man waxoon naa la sawaay yi di suñ mag ñi wax mu nekkoon lu leer waaye tamit gannaaw bi ma la indilee xadiisul qudsi bi danaa la indil xadiisu nabawi bu koy tegtale dellul ci ibnu abbas moo génnee xadiis bi waaye imaamu bayhaqi yu solo na ko imaamu surqaani yu solo na ko ci mawaahibu ladaniya imaam sabaki yu indi na ko ci sifaawu siqaam alxaafid alxaysami yu indi na ko tabaraani yu na ko ci awsat yooye yépp yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama di ca wax ne walaw laa muhammadun maa xalaxtuka bu taxutoo nag bi yow aadama sax duma la bind yàllaa ko wax aadama te loolu mi ko koy wax di ko daanee ci hadis bi ma la waxoonoon démb ne la maxtarafal a la maxtarafa aadamal qaala ya rabbi asaluka bi xaqi muhammadin lama xafarta lii fa qaala allahu ya aadamu wa kayfa arafta muhammadan walam axluqu qaala yaa rabbi li annaka lama xalaqtani bi yaddika wa nafaxta fiya min ruuxika rafactu rasi fa raaytu ala qawaimi al arshi maktuban la ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi fa alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahaba alxalqi ilayka fa qaala allahu sadaqta innahu la ahabu alxalqi ilayya ud'uunii bi haqqi faqad ghafartu laka walaw laa muhammadun maa xalaqtuka kon mu ne aadama bi mu fàggoo ak njuumte te njuumte gi yëpp zahir la waaye topp yàlla piir la ci baatin dañ ko ko digal lekk garab ga ci baatin tere ko ko ci zahir su ko defee nag bu ko lekkutoon du mën a wàcc bu wàccutoon doomu aadama yi duñ mën a soqeekoo ca moom ba fiy nekk te loola yàlla namu na ko ba pare mu héegal na mu ga nag amel ga ci lii mën a am mu tere ko ko ci zaahir te digal ko ko ci baatin ba tax loola mën caa soqeekoo léegi nag muy jéggalu yàlla ca loola ci njuum teeg zaahir gi te nekk topp baatin ah fu ne mu dem waaye yëg ne dëgg-dëgg booy sàkku dara ci kenn jaaree ko ci ko kooka ko gën a jege rek boo xamee ki ko gën a jege xamaale la nga bëggoon ca kooka kooka mu yëg ne mbooleem mbindee fii la ñuy bëri bëri yonantu moo ci gën a jege yàlla mu gis yàlla mii nga xam ne dafa wéet ba xarafiñ koy wéetalee amul tomb mu jël turu yonantu bi di ko méngaleeg turam wa di leen dendale bind ko ca kenoya arashia aadama jaare def tawassul moo tax koy dàq da ngaa xamul rek aadama njëkk a def tawassul ci sayyiduna muhammad mii sallallahu alayhi wa ne maanaam yow yàlla maa ngi lay ñaan ci darajaay yonantu bi ci xaq yonantu bi yàlla ne ko ud'uni bi haqqihi nang ma woo ñaan ma ci darajaam ma jéggal la bam ca jaaree ci darajaay yonantu bi rek tawassul du dara loo bëgg joti mënoo caa jot direct nga jaaree ko ca ka ca joti mu jotale la ca loolu rek la su ko defee nag sariya nangu na ko aada nangu na ko xel nangu na ko fa yàlla nekk ci kaweeg ci yëkkatiku boo ca mënta joti waaye waay jaaree ko ci yonantu bi rek ma ca joti wala nga jaaree ko ci ab wëliyu yàlla wa ca joti wala nga jaaree ko ci jëf ju baax wala tabaarakallaahu nga jaaree ko ci loo mën a def tawassul lu joti rek la fegg foofa moo tax yàlla ba fa ne rek yaa ayyuha alladina amanu yaa ayyuha alladina taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata yéen ñi gëm yàlla waay waay sàkku leen jottali lu leen xeggale ci man mu mel ni nag firi lut ñu ko ci aaya jooje waaye alquran mooy firi alquran boo demee ci jawaahiru rasail cheikh al islam ibrahim mu ne aaya jooju mu wax aaya ju ko firi ñetti aaya ñoo ko firi mu ne wasaa'il yi bi ci gën a màgg gën cee tedd gën cee gaaw mooy yonent bi moo tax yàlla ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah ñaareelu wasaa'il yi mooy topp ab wëlli yoobu yàlla moo tax mu ne wattabi sabila man anaaba ilaya bu ñetteel bi nag mooy jottalikoo jëf ju baax di ca ànd ak ñu baax kooku mooy wasbir nafsaka maa alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi fekk yuriduna wajhahu kon yàlla ba mu ne yaa ayyuha alladina am taqulaa wabtaxu ilayhi wasilata wasilatu googu ñetti aaya yi ñoo ko firi moo tax boo demee ci téere yi ruuxul bayaan mu ne mën nañoo def tawassul jaaree ko ci yonantu bi jaaree ko ci ab yonantu bi yàlla mu dugg qul in kuntum tuhibbuna laa nii mën nañoo def tawassul jaaree ko ci wëliyoo bi yàlla mu dugal wa tabe sabila man anaaba ilaya man nañoo def tawassul jaaree ko ci jëf ju baax joo jëf nga jaaree ca kooku mu nekk ay nawaafil comme hadisul qudsi ba lam wax ma zaala abdi yataqarrabu ilay bi nawaafilil xayri kon loolu tamit xeet la ci tawassul waaye du boobu rekk nag aadama nag dafa def tawassul moom mi ab yonantu jaaree tawassul ci yonantu bu ko ëpp garaat muy sayiduna muhammad bam ca defee tawassul rek lam ca doon ut am na ko yàlla xamal ko ci jeexitalu xadiis bi ne ko walaw laa muhammadun maa ko bu taxutoon ak yonantu bi sax du ma la bind kon bu taxutoon ak yonantu bi yàlla du bind aadama bu aadama xamatoon ñun ñii duñu xam waaye waaye bu aadama xamatoon lu fi asamaan ciy def bu aadama xamatoon lu fi aljaanaay def ak safara waaye sax xadis beneen ci beneen riwaaye ñëw na safar tudd safara tudd aljana loolu ma wax la xadis boobu xaakim génne na ko ci mustadrak ci sartaab buxaari yu ci wuuteeg lenn ca baat ya mu jëlee ko ca Omar euh, maanaam Omar ibnu Xataab wéral na ko tabaarakallaahu imaamu Bayhaqi yu ca Dalaa'ilu wa nga xam ne Bayhaqi yu euh, boo demee ci euh, téere bu tedd bu suñu mbokk mu baax si Ahmed Tidiane Gaye taal yi tuddee ko laa na mu ne Bayhaqi yu borom xam-xam yëpp a d'accord ne. xadisam yi mawdu amu ci moom du solo ay mawduaat te moo solo xadis bii ma wax la mu ne tamit boo demee aydan imaamu Qaslaaniyu génne na ko imaamu Sarqaani génne na ko ci mawaahibu ladaniya imaamu Sabaki yoon génne na ko ci sifaawu siqaam imaamu eh, eh, maanaam xaafid xasami tamit génne na ko loolu lépp boo jëlee tabaraani moo ko solo ci awsa mu nekk loo xam ne lu wér la am na ci riwaayu boo xam dafa ne ko wa huwa aaxirul anbiyaa'i min boo jëlee nag ci yoonu ab ibnu abbas moom dafa ne ko fa lawla muhammadun ma xalaqtu aadama walla janata wala naara kon boo fi nekkee di weddi naan aljana ak safara ak asamaan seeg suuf si jant bi ak weer wi ak nit ñi ak malaaka yi ak mala yi ak njanaaw yeeg jinne yi yonentu bi taxut yàlla xamal leen njuumte la xadis bi moo ko tekk la fa lawlaa muhammadun maa xalaqtu aadama walla jannata walal naara xaakim moo solo xadis ci musadrak demal nga seeti ko te gis u ñaareel ba demal nga seeti ko ci raqmu six cent cinquante et un naka noonu tamit mu nekk isnaad boo xam ne bu wér la ah cheikh al islam ay bal al wax na ko boo demee def am na ko ca fatawaaxam ya ibnul juusi wax na ko boo demee ca wafa ci njëlbeenu téere ba ibnu kasir tamit toxal na ko ci bidaaya ak nihaaya al bidaayatu wa nihaaya xaaj bu njëkk ba boo demee danga ko fekk ca raqamu téeméer ak juróom-ñett fukk cent quatre-vingt kon nag te boo demee ibnu taymi yaay wax su ko defee kon loolu lépp nekk na lu wér boo demee nag tabaarakallaahu hadis baa ngoog nekk lu wér muy tekki ne bu taxutoon ak yonantu bi yàlla doo amal dara ci xam ak yonantu bi ci la jant bi amee weer wi asamaan si suuf si nit ñi malaaka yi mala yi ndax waxoon naa la démb ne loo topp boo ko teggee boo teggiwul sa tànk rek mu yóbbu la ci soqekaay ba loo gis xam na soqeekuwaay amul lu amul soqeeku waaye boo toppee ndox mu won la fan la ndox mi soqeekoo nga topp dugub wala cox mu won la fi mu soqeekoo nga topp ceeb bi wala cere ji mu wax la fi mu soqeekoo waaye mbindeef yépp tamit boo leen toppee ña nga soqeekoo ca Sayyiduna Muhammad loolu nag yàllaa ko def ci coobareem kenn mënu ca dara ndax mooy innama amruhu ida arada shay'an an yaqul loo kun fa yakun xanaa boo koy weddi ngaa bëgg a wan ne kon nag yow mi ko bëgg a loo a saxal ngaa bëgg a wax ne kon nag li tax yàlla bind mbindeef yi sa sëriñ bi la wala li tax yàlla bind mbindeef yi sa waajur wi la wu jigéen wala wu góor wi wala li li tax ku tax yàlla bind mbindeef yi mooy sa mufti bi xanaa loolu loo gàtt gàtt xam-xam waroo koo nangu waaw boo ko xañee yonantu bi kan moo xeeyoo loola boobu garaat bu ko yonantu bi ñàkkee ku ko xeeyoo xamut ku dul muhammad kon nag hadis boobu di hadisul qudsi bi maanaam xalaxtuka min ajli wa xalaxtul xalqa li ajlika ak walaw laa muhammadun maa xalaxtuka walaw laa muhammadun maa xalaxtu aadama walal janata wala naara loolu dong ci la suñ mag ñu baax ñu tedd ñi nga xam ne kenn gënu leen a xam sukkandiku ba nga dégg maam xalifa ne lawlaahu maa kaana kawnun iz kaana aynal kamaali fa huwa almuqaddamu xaqan fi lxalqi duuna jidaali wa in taaxara baadan fa faham li jamci lxilaali ca baxru mujj tas la ko waye xasida ba nekk kasful xumma boo demee ca baxru xafif ba dafa ne anta lawlaaka lam yakun kullu kawnin wala ma zaala an zawihi saqaa'u daa amin kal wujudu xatta stanaa rab min maqaabisi daw ikal anbiyaa'u kon loolu lépp foofu la ko teg abana min nuurihi nuura nabil alami di Seydil Haaji Malik wax tamit foofu la ko teg ci hadis bu leer boobu su ko defee kon yonantu bi sallallahu alayhi ñaareelu mayam gu tedd gu sell gi mooy mbindeef yi ñu ngi soqeekoo ci moom bu taxutoon ak moom mel na mbindeef du am waaye ñetteelu may gi nag moom kenn la yàlla jagleel bi mu bindee rooxu yi benn rooxu solo gut jëmu du malaaka du mala du njanaaw du nit yàlla dajale rooxu ya di wax ak ñoom ca kàddu ga yàlla ca ñoom ca moom mu ne leen alastu bi rabbikum ndax duhuma seen borom ba ko yàlla addoo ruuxu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkk a jub wax balaa xaaloo balaa dam mu ko waxee moom mi ko njëkk a wax mursaluuna yi door koo wax anbiyaawu yu tegu ci muuminuuna ya tegu ci awliyaawu yu tegu ci demeet muslimuuna yi ñooña ñëw ñiy dem dem ba kuffaar yi sax munaafiquuna yëpp wax ko waaye ñoom dañoo nekk ca gannaaw sàppe ya loolu la ruuxul bayaan wax moo tax bañ waxee balaa dalee googa ba ñu ñëwee saxaluñ lam làmboo ñii nag ma tudd nga xam ne ñoo nekk ca sàppe yu njëkk ya anbiyaa yu ñoo jiitu gannaaw bi roxo yonantu bi jiitoo mursaloon yi ñoo jiitu anbiyaa tegu ci moominuuna yi wëlliw yi génnee tegu ci muslimuuna yi door caa tegu munaafiquuna ya door a ñëw ak kufaar ya nekk ca gannaaw moo tax ñoom ba ñu waxee lañ wax foofa ci balaa nangu fa ah dañu ñëwee fii daal roox ya sol jëmm lañ waxoon jëfeewuñ ko waaye nag la ca mën a am daal ba yàlla ne alastu bi rabbikum daal rooxug yonentu yàlla Muhammad a njëkk a wax balaa moo tax yàlla di wax ci alquran ne wa id axasa allahu min min bani aadama min zuhurihim zuriyatihim wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qaalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilina foofa ba ko yàlla di wax rooxug yonantu bi moo njëkk a wax balaa ku cay tegu tegoo tic ca lu cay tegu tamit door caa tegu loola ngëneel lu rëy rëy la foofa nag boo demee ca xasaayisul kubra mu ne loolu li muy tekki imaanul bayati la allati tuxasu lil xulafa mooy ngëm jaayante la gi ñuy jàppee ci xulafaa yi ku war a toog ci xalifa nit ñëpp ñëw jaayanteeg yow foofa ruuxu yëpp dañoo jaayanteeg ruuxu yonent bi ruuxu yonent yàlla su ko defee nag kon xoolal ma màgg gi ñu màggal yonent bi sallallahu fii ci ngay xamee na yonantu bii ndeke mooy yonantoo yonantu yi mooy nabiyul anbiya yi mooy rasulul mursalina yi moo tax bu yowmal qiyaamee yonantu yëpp seen dara dañuy nekk ci roon drapeau wu yonantu bi yonantu bi yëkkati drapeau bi tiim leen ci lay wax ne aadamu wa man duunahu taxta liwaa yi yowmal qiyaama kon kooku mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa mu tedd mu sell mu màgg moomu tabaarakallaahu kon loolu mooy ñaareelu may gi mooy ki kàddoom gi njëkk àddu addu bi yàlla laajtee ne alastu bi rabbikum mooy ki njëkk a wax balaa waaye tamit moom yonentu bu tedd bu sell boobu ba ko yàlla di xamal nubuwatoom ga booba maa ngi ci diggante ndox ak ban mooy ñeenteelu may ga ba moom waxal na ko boppam ne kuntu nabiyan wa aadamu bayna ruuxi wal jasad am beneen riwaaya bu ne kuntu nabiyan wala riwaaya bu ne inni la xaatimu nabiyina wa inna aadama la munjadilun fi tiinihi booba aadama ngay sànneeku te diggante ban ba ci diggante tabaarakallaahu ruuxu ak jasad ñaari riwaaya moo ci xam te waxoon naa la ko su ko defee kon euh, wax naa la ko moom yonantu bi sallallahu alayhi wa ci euh, ñaari riwaaya yooyu ma indi la ko tabaarakallahu mu nekk jëmm joo xam ne ju tedd ju amul morom riwaaya bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa imaam ahmad ko génne ak buxaari yu ci taarixam ba tabaraani yu ak hakim ak bayhaqi yu abu nuaymi ci masiratul fajri ñi laaj ko ne ko mata kunta nabiyan qaala wa aadamu bayna ruuxi wal jasad mooy riwaaya bi ma la njëkk a jox bu ñaareel bi nag imaam ahmad ko génne ak hakim ak bayhaqi yu ñu jëlee ko ci irbaab ibnu sariya mu ne man maa dégg sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inni inda allahi fi ummil kitab la xaatimu nabiyina wa inna adama la munjadilun fi tiinatihi moo tax ma indi la ñaari riwaaya yooyu yëpp kon loolu moom la ko yàlla jagleel waaye timit yonantu boobu sallallahu alayhi wa sallama yonantu yëpp jaayante nañ ak moom kenn ku ci nekk bala laa yàlla yónni dangay ngay signé dangay da ne su ma dajeeg Sayyiduna Muhammad ci jamono danaa summeeku takkaayu bokk ca ña koy jàppale ca liggéeyam ba soo ko waxee ba pare signé yàlla door laa tamponeel sag nubbuwatu ak sag risalatu soo xeewoo nubbuwatu mu jox la ko soo xeeyoo xool toog risaalatu mu jox la ko gannaaw bi nga jaayanteeg yonantu bi kooku wax naa la ko wa is axas naa min nabiyina misaaqahum wa minka wa min nooxin wa ibrahima wa muusa wa isa an aqimu diin demeet foofa dañoo jaayanteeg yonantu ba pare door a lañ xam ba tey abu sahlin alqataan génnee na mu jëlee ci sahlun nu saalih alhimdaani yi mu ne man maa laaj aba jaafar muhammad ibnu ali kayfa saara muhammadu yataqaddamul anbiya wa axiru man buisa nu yonantu bi mën a jiitoo yonantu yi te moom lañ mujjee yónni haa qaala inna allaha taala lama aqasa min bani adama min zuhurihim zuriyatihim wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum kaana muhammad awwal maanaam kaana muhammad awwala man qaala balaa wa lidalika saara yataqaddamu al anbiyaa wa huwa aaxirun aaxiru man buisa kon bi ko Muhammad Kaab laajee Aba Jaafar moom Sahl ibnu Saalih Himdaani moo ko laaj Aba Jaafar nu yonantu mën a mujjee te jiitu mu ne ko waaw bi yàlla dajalee mbooleem rooxu yi benn solo gun mbubb tu doomu aadama yi seedalee leen ci seen bopp ne leen ndax duhuma seen borom rooxu yonantu bay njëkk a wax balaa kuy wax door ko wax foofa la jiitoo yonantu yi donte mu mujj génn moo tax mu ne ko kaana muhammadun awwala man qaala balaa walidalika saara yataqaddamu al anbiyaa wa huwa axiru man buisa moo tax maam xalifa di la wax ne wa in taaxara baasan fafham li jamci al wallaahi bu jiitoo te mujj xamal ne dajale jikko yam xable woon ña daagoo ko ci seen bañ foog ne ñoo ko moom mu door koo dagale door a daago bañ a waajaanga looloo ko tax mu mujj waaye billaahi lam xable woon bu ko njëkkoon a sañse abul ko kenn daago ku daagoo ti kenn du la xool waaye moo xabaloon Adama sañse mbuur yi booba noona moo xabaloon yonentu yàlla Ibrahima xaritoo xam nga ca yàlla moo xabaloon tabaarakallaahu yonentu yàlla Moussa ak euh, tànn gi ko yàlla tànn mu nekk kalimullahi moo xabaloon yonentu yàlla Isa ruuxullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryama bam leen ko xabalee ñi daagu ba gaay ne gaayaa nga yonentu bi ne la ma leen xabaloon dagal dagal leen ko ngeen delloo ma ko la la teqali ko xoon ke ñoom ñëpp dagee ci jëmmam ja bam feeñee waxatuñ kenn mi ngi mel ni biddiw yi nekk fi guddi jant bee leen xabal leer keroog bu jant beneen ne kenn du leen gisa tëréewut kenn ku ne fa nga kon bu xasee feeñ dara dootul feeñati loolu la ko yàlla defal mooy jant bi jantam ngëneel la keroog ba mu ne dàkk xas feeñ rek lépp nëbbu na maam Khalifa wax na ko ne ne ko zahara baax baadu min sifatika fihim fahumoo anjumun wa anta zukaaw mu ne ko sa lenn rek moo feeñ ci ñoom waaye sa lépp xaju ci ñoom lenn ci say may ci say ngëneel moom nga jëloon xabal leen ko kenn ku ne nga xabal ko ca yenn waaye lenn la de comme ni jant bi xabalee lenn ci leer ci biddiw yi lépp leeri jant bi xajul ci biddiw yi mu ngi jàngale xam-xamu astronomie waaye mu ne ba jant bi ne dàng ne fàng biddiw yi kenn ku ne fa nga newoon yaa nga fa waaye kenn gisatul leen dafa mel ni sondeel buñ taxal ci làmp courant waaw kon nag bu làmp courant bi jiitu lu ngi defee sondeel waaye dañ taal sondeel yi bañ xam ne sondeel kenn xam na lu man lammankat doyoon ñu waaye ba lampe courant bi ne ray ñëpp ne fay leen sondeel yi yonent bi bam ne ray jantam ba lam xable woon lépp mu dagale ko la gaay ne fay leen gaayale ndax gaayale kat sax moom mii ci lañ jëlee woon leer kon zahara al baadu min sifatika fihim fa humu anjumun wa anta zukaaw anta kanzul ilahi wa zuxru wal izz suwa min kastumi datin naamaaw ci yow la yàlla tëbbu xéewal yi de moo tax kon yonantu bàngoog ci ñeenteelu mayga ñeenteelu mayga mooy ne yonantu yépp bala ca yàlla yónni kenn dana signé ak yow ba nga d'accord ne yonantu bee sama yonantu gëm naa ko nangul naa ko su ma dajee woon ak moom danaa takkaayu xeexle ko ba nangu yàlla door laa signal ne la aca demal ngay ñëw tamit moo tax ku ca dox sa mission balaa jeex nga dagale sa nit ñi ne leen ku fi sayiduna muhammad fekk rek na nga jaayanteeg moom topp ko ca def ndigle ya ak tereem ya man mii doon seen yonantu man mii moom sax mooy sama yonantu ndax mooy nabiyul anbiya yi loolu yonantu yàlla Muusa wax na ko nitam ña ci yati min ba'di ismuhu ahmadu yonentu yàlla Suleymaan ci rixlatoom bu gudd booba bu dem ba fa war a nekk tey mu dagale nit ña ne leen fii ma taxaw moo nekk kër ak gàddaay ak mujj ak yonentu yi lii ma wax ku ko fekkee na ko gesal ku ko fekkee fekkewut ñun ñii de mooy suñu yonentu jaayante nañoo moom ci baatin ak ci zahir sama jaaro baa ngi nii turam laa ci bind ñu ne ko à peu près fi nga koy waxee fu muy feeñee mu ne à peu près junneexat tubaaxul tubaaxul ximiyeer yi waxoon na ko nitam ña bañ na ko ba mu demee ba ci Madinatul Munawwara sax dafa fa tabax ay cité seet ka ca ëpp xam-xam mu jox ko kër ga ca gën a baax ne ko toogal fii di tertuwaale mu jóg yonantu yi moom laa tabaxal kër gi bu gàddaay see fa lay jëm ñooña ñoo doon doon noxante di doon noxante ba abi ayubal ansaar yu sët la ca góor googa noona ñu tabaxaloon kër googa moo tax yonent yi bi mu ñëwee rek dem dali kër abi ayuba déedéet bu kenn waxati kër abi ayuba këram la dal kër googa tubaxul ximyér yi moo ko tabaxaloon maami abi hurayra ya abu ayuba ya di ko donnante ba nekk ci abi ayuba moo tax abi ayuba yónnee woon yonent bi leetar avant muy hegg si moo tax ba mu ñëwee wàcc ca géléem ga mu am sañ-sañu jël ay bagaasam di ko yóbbu këram te fekk na waxagut ak yonent bi wax nañ ci baatin mag mu day na yonent ñeme naa ñëw ci dëkk wàcceegut ay bagaasam nga ñemee jël bagaasam di ko yóbbu sa kër ba yonent bi laaj na am sama bagage ñu ne ko abi ayuba moo ko yóbbu mu ne almaru maa rahlihi looloo ko waral kon déggoo googa ci dégg ak baatin ci leetar bu mu donnoo ci ay maamam ñoo nga donnoo ko ci seeni maam ñi koy donn waxante ba ca kafa tuba wala ximayéer yi tabaxaloon kon yonentu baa ngoog sallallahu alayhi wa te booba lii lépp dara xewagut kon euh, kooku mooy juróomeeli may ga ba ca tegu timit ci ñooñu noonu dañoo jaayante bañ na leen da ko gëm ñu ne d'accord summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuminunna bihi wala tansurannahu qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min ashahidina mu doon leen waaye tamit juróom-benneeli may ga moom kenn moo jagoo ñi tudd turam wa ci mbooleem téere yi téeméeri téere ak ñeent ñoo mas a ko ci asamaan ñëw ci jaami yàlla yi mbooleem téeméeri téere yooya ak ñeent suñu mam Aadama amoon ci fukk yonent yàlla siisa am ci juróom fukk idrisa am ci fanweer ibrahima am ci fukk muy suufu ibrahima ja yonent yàlla muusa am tawreet daawuda am zabuur isa am linjiil sayiduna muhammad ñëw am furqaan mbooleem téere yooya tudd nañ ca téere ya turu yonent bi téere yépp ko indi bind turam yi ci mbooleem asamaan yi bind turam yi ci mbooleem suuf yi bind turam yi ci mbooleem xobi garab yi bind turam yi ci mbooleem pottaxi jigéeni huru ayni ya bind turam yi ci mbooleem bëti malaaka ya bind turam ci mbooleem xobi sidratul muntaha ya te booba tur wii ñu war a bind ñëwagut noonu ñu bindee turam wala ñu bindee meloom ya bind ay jaar jaaram ci téere ya kooku alquran wax na ko allazina yattabi'una rasula nabiya al ummiya allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injili lii mooy tur wa melo wa nag mu ne ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'isa lii la yàlla wax mu ne ñoom ñi dañoo bon di ko weddi ñu jàng tawret ak linjiil waaye yonentu yàlla Muhammad mi waa tawreet ak waa linjiil fekkoon nañ turam wi mu nekk rasula nabiyul ummi yi fekkoon nañ ko mu nekk luñ bind ci seen téere ya ci tawreet ak linjiil fekkoon nañ ñu bind ci ay meloom ne kuy digle lu baax la te jiitu ca ñëpp kuy tere lu bon la te kenn du ko ci gis lépp luy lu teey dana ko daganal lépp luy lu xaraam muy lu bon dana ko xaraamal ci ndigalal boromam moo tax tabaarakallaahu lii fekkoon nañ ko ci seeni téere ya kon nag buñ ko dumooyoo dañoo nar yàqule moo tax waaye lii mu ngi ne leer naññ ci tawreet leer naññ ci linjiil bañ koy jéem a nëbbu nag alxuraan na ñëw weer leen ne li ngeen di nëbbu nëbbu ndax lii mi ngi ne wàtt leer naññ ci seen téere ya kon loolu moom la ko yàlla jagleel sallallahu alayhi wa mu jagoo ko moom kenn wala si yeneen yonent ya ko jiitu woon yëpp amul kenn ku am loolu noonu ñu bindee ko turam wa ci téere yooya ni lañ ko bindee ca kenoy aras ya looloo waraloon suñu maam Adama gisoon ko gisoon ko ñu bind ko ba taxoon mu jaaree ca tabaarakallaahu kattaliku ci dara jaam ba yàlla mayee ko ca lam ko ca may ah kon nag loolu la ko yàlla defal moom sallallahu alayhi wa moo tax yonantu yàlla Moussa déclaré na ay mbiram njëkk yonantu bi di ñëw ndax wax naa la turam yi dund ko moo tax Moussa sañ wax na yaati min ba'di ismuhu Ahmadu kenn mënu ca dara imaamu Tabaraani ne génnee na jëlee ca abi umaama albahiliyu mu ne maa dégg yonantu bi mu wax ne doomi maat yi ibnu adnaan ban matee juróom fukki góor tàbbi ca armée yonentu yàlla Muusa ba su ko defee nag ñi xee ko xamal ko Muusa nag ñaanoon leen yàlla yàlla wax yu ko ne ko bul ñaanati ñi yàlla sëti mu jël yonentu yi mi ngi seen biir ku nga xam ne mooy nabiyul ummi yi di nazirul bashir mooy boroom xeet wuñ yërëm wa nga xam ne dañuy jëf lu tuuti yàlla nangul leen ca lu bëree bëri tàbbal leen jana su ko defee bul ñaanat yàlla armée bi mukk mukk mukk mukk ndax kat ñeen fukki góor yoo xamee ne ni doomi maat ibnu haddunaan lañ ñi ngi ci te ñooñu ñoo war a meññ yonent bi moo tax axraja at-Tabaraani an abi umamata al-Bahili qaala sami'tu rasulallah sallam yaqul lama balaga waladu maat ibnu adnaan arbaina rajulan waqacu fi askari muusa fantabahuuhu fa daa alayhim muusa fa awha allahu ilayhi laa tadcu alayhim fa inna minhum annabiyu al ummiyu alnadiru albashir wa minhum al ummatu almarhumatu ummatu muhammad alladina yarduuna min allahi bilyasir min alrisqi wa yarda allahu minhum bilqalili min alamal fa yudxiluhum aljannata bi qawli laa ilaha illa allahu nabiyuhum muhammadun ibnu abdallah ibnu abdul muttalib fi hayatihi al kon lii fekkoon na yonentu yàlla Muusa xamoon ko gis nga ko tamit Buxaari yu gën jële ci Ataa ibnu Yasaar mu ne maa dajeeg Abdallahi ibnu Omar ibnu Aas yi mu ne solo na ma melow yonentu bi ko solo ma melow yonentu bi ah innahu la mawsuufun fi tawreet bi baadi sifatihi mu ne ko de dañoo li ma li may laaj meloom wi luñ mel luñ solo la ci tawreet yaa ayyuhan nabiyyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran wa daa'iyan ilallaahi bi idnihi lii tawreet andi woon na ko tam ni meloo yonantu bi la mu ne tamit nekk na ko xam ne ah yàlla nga ko cay wax ne ko anta abdi wa rasuli samaytuka al mutawakkil lay maanaam laysa bi fadhin wala xaliifin wala saxaabin fil aswaaq wala yujisi bi sayyiati sayyi'a walakin yaafu wa yasfahu lii xamaloon na ko ko mu ne ko kooku mooy sama yonent bi sama jaam tuddee naa ko kuy wakkiilu kii nekkut ku ñaaw jikko nekkut ku xiis nekkut kuy yuuxu yëkkati kàddoom ci marché yi nekkul kuy fayee lu bon ci lu bon ku ko fayee lu baax ku ko fayee lu bon mu fayee la lu baax waaye dafay nekk kuy jéggale kuy kuy jëllale lii lépp ay meloom la woon ñu ngi ko ko doon xamal ñu def ko ci tawreet gis nga ko tamit muhammad ibnu hamsata ibnu abdullahi ibnu salaam jëlee na ca maamam abdullahi ibnu salaam mu ne dégg na ci génn ak yonantu bi feeñam ci màkka mu génn dajeeg moom ne ko fa qaala lahu annabiyu yonent bi ne ko anta ibnu salaam yaa ibnu salaam aalimu ahli yasrib yaay borom xam-xamu waa yasriba di madinatul munawwara qaala naam qaala naasatuka billahi alladi ansala tawrat ala Muusa hal tajidu sifati fi kitaabillah mu ne ko ndax dama lay laaj la lent lu ci téere bii di tawret yàlla wàccoon ko ci Muusa ndax fekkoo sama melo ci téereem ba mu ne ko neexut ba neexut waaye fekk naa fa sa melooy ci sa téere ba sa téereem ba ah, kon nag nga xam ne yonantu bi kenn réerewut ko du waa samaan du waa suuf ñépp a ko xam te liñ ko xamee lépp muy lu baax lu sell lu rafet naka noonu yonantu yàlla aadama xam na ko waxoon na ko doomam yi Moussa wax na ko xeetam yi Isa tamit wax na ko xeetam iz qaala Isa bnu Maryama yaa bani Israa'iila inni rasuulullaahi ilaykum lu mu ca teg musaddiqan limaa bayna yadayya mina tawreeti wa mubashiran bi rasuulin ya'tii min ba'dii ismuhu Ahmadu lii la Isa wax nitam ñëpp comme ni ko yonent yàlla Muusa waxee nitam ñëpp aaya jooju yonent yàlla Isa ko moom ci ya'tii min ba'dii ismuhu Ahmadu moom nga dégg bu sayru yi di wax ne maa madat fatratun min ar-rusuli illaa basharat qawmahaa bika al-anbiyaa amul benn yonantu bu liggéeyee mission ba muy jeex rek dajale na xeetam wax leen ne ah sa jaa ngi ñëw de man de lancement laa waaye borom film baa ngi ñëw wa kullu nabiyin jaa yubashiru qawmahu bi annaka taati man li nubuwati loolu la ko yàlla defal juróom ñetteel ba moom kenn la yàlla jagleel yónni ko ci mbooleem mbindeef yi yonentu boo waxati nitam ña rek wa laqad arsalnaa nooxan ila qawmihi wa ila aadin axaahum huudan wa ila samuda axaahum saalihan wa ila madyana axaahum shuayban waaye kii nag wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina ñooña seen lumière yañ amoon manta daj kàpp àdduna bi benn gox benn côté la mën a leeral moo tax seen leer ga ñu benn côté ki seen nit ñi rek fa la mën a xam bu ko paasee dootul leerati yonent bi nag la yàlla jox muy leer goo xam ne mën naa daj kàpp àdduna bi ba mel ni jant bi wala jant bee mel ni moom foo mën a ne mu tiim la ak noo mën a mel rek tabaarakallaahu da gis ne leer ga tamit dana la leeral ku bëgg a nekk fu la jant bi du tiimee danga nga am problème xamal nit ñi problème ku bëgg a nekk fu la jant bi di leeralee danga nga am problème xamal nit ñi problème kon moom kenn la yàlla jagleel leer gi daj càpp fépp ci lépp ci ñëpp moom kenn ko jagleel moo tax yàlla na ko ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina juróom ñeenteel ba moom kenn moo jagoo yàllaam lëmm di julli ci moom malaaka yi di toppandoor yàlla ci julli ga mbooleem jullit ñi fu ñu mun di nekk ci àdduna bi ku ci bañ a yàqulee julli si yonent bi moo tax mu ne inna allaha wa malaikatahu na ala nabi kon nag yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kenn ko jagoo de keneen ku moom xamuloo loola moom kenn ko am moom sayyiduna muhammad sallallahu wa sallam yàlla am lëmm sax na dàkk di julli ci moom malaaka yi ña ngay julli ci moom kon yéen ñi gëm yàlla gëm bis penc ci dee leen julli ci yonantu bi bu ko defee nag imaamu Malik ne ku dund ba génn àdduna julli woo ci yonantu bi benn yoon xam nga bàkkaar ndax salloo moo tax al amru la te al amru yadullu ala al wujub maa lam yu te fii gisuñ dara lu ko soppi yóbbu ko ci eh, amaru nat boog ibaaxaak yooyu amar ja amar wu jóob la moo tax mu ne waaye boo julli woon wenn yoon ci moom nag sa dund gi lépp wàcc na la waaye nu mu gën a bëree gën a baax nu mu gën a bëree rek gën a baax nga jël ku mel ni Cheikh na Tijaani wir doom bi ko maamam jox mu sant la bis bi lu mu gàtt gàtt nga nga nga nga julli ci yonantu bi ñetti téeméeri yoon boo wasifaa ñaari yoon ñetti téeméeri yoon nga julli ci yonantu muy muy limab rabbiya te wir doo suba wa téeméer salaatu ala nabi wir doo ngoon wa téeméer salaatu ala nabi wasifa wa suba juróom fukk bu ngoon wa juróom fukk muy limab rabbiya su fekkee wenn yoon nga wasifa ñaar téeméer yoon ak juróom fukk yaa ngi ko julli si yonent bi sallallahu alayhi wa muy deux cent cinquante kon moom kenn jagoo loola kenn xamul loola waaye tamit fukkeel bi moom kenn la yàlla jagleel mu def israa war ci kawam daaba mu bàyyee ko ba ba masjidil haram dem ba ci masjidil aqsa yàlla yéege ko jëmu jaag rooxu ga yépp mu jéggi juróom-ñaari asamaan jéggi sidratul muntaha jéggi haras jéggi kursiyu jéggi raf dem ba féetee kaw kaw giseeg boromam mu yëkkati juróom fukki julli jox ko ko mu ñëw di ko indil xeetam wi ah, fekk fa Moussa juróom benneele asamaan muy wàññilu ba mu des juróom fukk ya yàlla xamal ko ne ko coono ba lañ wàññi waaye paror ga wàññi wuñ ca dara ndax maa yu badalu xawlu la daya te nag ah wàññiwuñ ca dara man jaa bil hasanati fa lahu asru amsaaliha kooku moom kenn ko am de dafi isra wi ci kaw daa ba tabaarakallaahu muy buraax ñi ne rooxu ga rek dem ñu ne déedéet njuumte la bu doon rooxu ga rek yàlla di wax subhaana kenn ku ci nekk loolu lekk lekk ndigg léegi léegi sa rooxu gi dem ko sa jëmm ji demul kenn loolu loolu nit dina koy def waaye nag rooxu ga jëmm ja liñ xàmmee woon liñ xàmmee woon rooxu mooy wàcc liñ xamee woon jëmm mooy wàcc waaye moom rooxam nga Cheikh na Tidiane nee na dañ koo mooñee ca suufu aljana fa lañ ko tibbee looloo waral mu baaxoo yéeg ni rooxu gi mel ni la jëmm ja mel keneen ku dul moom nag sa rooxu gi ak sa jëmm ju duñ benn yàlla dafa jël sa rooxu gi bu melee nam war a mel ma nga dëkk asamaan mooy cosaanam soo ko yàqut ba tey bu fa bëggee dellu na yomb sa jëmm ji suuf mooy mooy cosaanam moo tax fi lay ci suuf lay dund ba dee génn àdduna ngi denc ko ci suuf minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra waaye yonent bi nag la yàlla jagleel ni rooxo ngi dëkkee asamaan ni la jëmmam ji dëkkee asamaan moo tax yéeg yéeg yomb ko moo tax yéeg googa la yàlla di yéem ba ne subhaana alladi asra bi abdihi tabaatab abdu arab du ko wax jëmm ju jëmm ju lu dul mu ànd ak roox rooxu kese kay bi roox yi la yàlla fu ko fu ñu waxee abdu rek jëmm la joo xam ne yàpp waa nga fa rooxu jàng ca deret jàng ca dara manqué wut ca moo tax mu ne bi abdi yi kon yàlla ne laylan wane ne waxut layla wane ne xaaj bu tuuti ci guddi la moo tax na nakkiral ko min al masjidil haraami wax na fi tàmbali tàmbalee ila al masjidil aqsa alladi barak naa xawlahu lu tax nag en la ba mun na li nuriyahu min ayatina al kubra lii moom kenn ko def ba muy dem xéeg ci alburaax daxaba joo xam ne fasa ko xëpp waaye moom moo xëpp mbaam gaawaay ba mooy bët ba juróom-ñaar fukki junne malaaka escorté ko ànd ak jibril ñii ànd ak mikaayil juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk ànd ak israfil ak hasrail ñii ci ndeyjoor ñii càmmooy ñii kanam gannaaw moom moom ba ca euh, masjid maanaam euh, masjidul aqsa mu yàlla dekkil yonantu yi tabaarakallaa ñu sol seen jëmm ya def juróom-ñaari sàppe mu jiite leen ñaari rakkaa ñaari rakkaa ya nag mooy rakkaay la loolu naka jekk mi ngi ko doon julli yonantu yi ña ko doon julli waaye bul wax ne ma ngay jëli julli di jiite julli déeréet yonantu bi jëli hutoon julli dafa doon julli dafa doon jëli li mu julli xeetam bi xeetam bi ñaataa war a nekk seen li mu julli moo tax ba mu demee suñu borom jox ko juróom fukk ya Moussa ne ko sama xeet wee gënoon a ëpp doole sa xeet wi te mënuñu woon lii demal wàññilu ji muy wàññi lu wàññi lu ndeketoo xeetam wi kat seen li mu julli mooy juróom mooy juróomi julli yuy taxaw taxawaay juróom fukki julli kese loolu la doon jëli waaye du jëmi julli moom ba mu demagoon mu daan julli naka jekk ñaari rakka suba ñaari rakka ngoon ci anit tabi millata Ibrahima hanifan bu daan julli di jublu masjidul haram na ko maam Ibrahima daan defee. su ko defee kon loolu la ko yàlla jagleel fukkeel baak benn moom kenn la yàlla jagleel. xottee turam wa ci turam wa turu yonantu bi mi nga xaree ci turu yàlla loolu waykat baa ngi koy wax xasaan wa shaqa lahu min ismihi luy ji lahu fa dul mahmudun wa hada muhammadu boo demee ci téere yi am nañu ne yonantu bi dëppoo naag yàlla ci juróom ñaar fukki tur juróom ñaar fukki tur yoo xam ne bu yàlla tuddee lii rek yonent bi loolu lay tudd ñoom ñaar ñoo ca dëppoo ci ay tur kooku nag moom kenn kese moo ko am tur yooye mu dëppoog yàlla rauf ci la bokk rahim ci la bokk moom nga jàng ci alquran laqad jaakum rasulun min anfusikum asisun alayhi anittum harisun alaykum bil muminin lu ci daw raufun rahimun raufun rahim kat ci turu yàlla yàlla ndax yaa jàng bismillahi rahmani rahim rauf xam na ci alquran bu jeex yuy tekki turu yàlla waaye tamit noonu mu nekkee turu yàlla noonu la nekkee turu yonantu bi sallallahu wa sallam kon loolu moom kenn moo ko jagoo xamul kenn ku xam loola xamul kenn ku xeñtu loola ku dul naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngay topp ay turam mu dëppoog turu yàlla nga topp turu yàlla yi mu dëppoog turu yonantu bi ñoom ñaar ñoom ñaar tabaarakallaahu ba mat juróom ñaar fukki tur yoo xam ne ñoom ñaar ñoo ca ànd kooku doo ko gis ci jënn jëmm ku dul sayduna muhammad sallallahu alayhi wa waaye tamit moom kenn moo jagoo yàlla lëkkale turam wi ak turu yonantu bi ci place yu bari kuy nodd ku ne soo ne ashadu an laa ilaha illa wa aw maanaam wa ashadu anna muhammadan rasulullahi nga cee teg li ko may nodd ko du wér kuy tuub dugg ci diina ji boo ne ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullahi li ko may tuub ga du wér kuy kuy noonu kuy taaye tamit noona moom kenn moo am loola keneen ku du noo amul loolu ibnu Asakir moo jëlee ci yoon woo xam ne man ata mu mu jëlee ko ci abi hurayrata mu ne yàlla bi mu wàccee suñu maam Adama ci hind dafa wéet jibril ñëw xoo ko ci noddu jibril ko ci nodd ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allahu ñaari yoon ne ashhadu anna muhammadan rasulullahi ñaari yoon Adama ne kan mooy muhammad ñu ne ko aaxiru wala dikka minal anbiyaay kii mooy kii mujj ci sa doom yi xamoon na ko ca turwa ca bañ ko bindee ca kenooy arash ya bisaar génnee hadis bu mu jëlee ci àlliyu mu ne yàlla bi mu bëggee xamal yonantu bi nodd jibril da koo ñëwal ca tàmbali ba su ko defee tamit andil ko buraaq bu ko defee mu war ca buraax commencer di tëbantu jafe-jafe jibril ne ko dalal waay amul kenn ku la mos a war ku gën a tedd Seydunaa Muhammad waa ci la ko war nag ah, mu dal nag mu dem ak moom ba ca kiiraay boo xam ne dana dana méng rahmaan fa bay na maa woo kasaalika rek mel na malaaka génne ca kiiraay commencé noddu allahu akbar allahu akbar ashadu an laa ilaha illallah ca gannaaw kiiraay ga ah ci la nag yonent bi xam ne lii mooy ci lañ war a wootee julli ci sama xel bi kon min waraayil hijaab mu ne sadaqa abdi ana arsaltu muhammadan mu dégg kàddu ga mu ne sama jaam boobu li mu wax dëgg la de maa yónni muhammad qaala al malaku malaaka ma ne hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar su ko defee mu dégg ci lu wax ca gannaaw kiraay ga na sadaqa abdi ana akbaru ana akbaru suma qaala laa ilaha illa allahu faqila min waraayil hijaab sadaqa abdi laa ilaha illa anna suma aqasal malak bi yadi muhammad fa qaddamahu fa amma ahlu samawati fihim adamu wa nuux fa yowma idin akmala allahu li muhammadin asharafa ala ahli samawati wal ard is kay sayduna muhammad kenn du moom kon loolu la ko yàlla jagleel su ko defee ñeenti yile ci liqaam ci nodd ci tuub ci tudd baatu seede bi ku ko wax ta waxoo tudd yorontu bi du wér moom la ko yàlla jagleel su ko defee kon moom tamit la yàlla jagleel ni méngalee turam wa ci noddu ci liqaam ci tuub ci taaya noonu la méngalee topp ga ku ko topp yàlla topp nga yorontu bi moo tax alquran ne atiu allah wa atiu rasula waxaat fane ne man yutii rasula faqad ataa waxaat fane ne walillahi al izzatu wa door a waxaat fu ne ne wallaahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu lii lépp moom kenn ko am kon loolu kenn xamu ko ku dul yonantu bi yàlla ne topp leen yonantu bi topp leen yàlla topp yonantu bi kon loo mën a mën a topp yàlla boo topp yonantu bi méngale nam doon toppee sa topp nga demul seet ñett yàlla fa koy perale ci alquran fu yàlla waxee julli leen rek joxe leen asaka wa aqimu salata wa atu fu yàlla ne jaamu leen ma rafetal leen jëmee seen ñaari waajur yi moo cay tegu wa'budullaha wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana waaye fu yàlla waxee tamit ne topp leen ma topp topp leen sayyiduna Muhammad ma ca topp wa atii'u llaha wa atii'u rasula fee moom dafa dégaasi sax ne man yutii'u rasul faqad ataa'a llah yonent bi la jiital fële mu ne wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu fukkeel baak ñeent moom kenn moo jagoo yàlla ne ku ko wuyu ji wuyu ji nga ma xoote yi bari nañ waaye xuy na ngeen xuy yi ñaari xoote xoote bu bu saf yàlla saf yonantu bi yéen tamit bu ngeen xootee xoote ba saf yàlla saf yonantu bi ba nit ñi xuy si leen ci na ngeen ko safal yàlla ak safal ko yonantu bi bu leen ko safal seeni maam bu leen ko safal seeni sëriñ bu leen ko safal politique moo tax yàlla ne yaa ayyuhal lazina amanu stajibu lillahi mais wali rasuli waaye tamit fukkeel ba ak ñeent yonantu bi sallallahu alayhi tabaarakallaahu moom la moom la yàlla jagleel loolu ma wax la bind turam wa mu lëkkale ko turam wa ci aras ci asamaan yi ci jëhi malaaka yi waxoon naa la ko waaye fukkeel ba ak juróom mooy kii malaaka yi tudd turam wa bépp waxtu waxtu woo wax rek malaaka yaa ngi tudd turam yontu bi yadkurul malaaikatu ismahu fi kulli saatin wa yadkuruhu almuslimuuna fi kulli yawmin xamsa maraat fi naxwi al azaan wal iqaama wa tasahudi demeet loolu moom la ko yàlla jagleel waaye tamit fukkeel ba ak juróom benn yonentu boo mën a waxati bu ko yàlla tudd ci alquran rek ca turam walay jaar waaye yonentu bi bu ko yàlla tudd rek garaat ba lay jaar lii sax tekki na ci alquran luy tekki ne yonentu bee gën mbooleem mbindeefi yàlla yi yonentu bee gën ci mbooleem yonentu yi aadama turam ñëw na ci alquran noox turam ñëw ci alquran ibrahima ak moussa ak sakariya ak ba mat ñaar fukki yonantu ak juróom la yàlla tudd waaye kenn ku ca nekk bu lay tudd dafa lay sàllaw lu ki sa tur wa yaa jàng aadama yaa aadama uskun anta wa zawjuka aljanna yaa nooxu ihbit bi salaam minna wa barakaatin alayka ibrahim yaa ibrahim ahrid an hada muusa moom kenn xamut num toll ci alquran wa id qaala muusa li fataahu yaa sakariyaawu innaa nubashiruka bi gulaamin yaa yaxyaa xusil kitaab bi quwa Isa bnu Maryama kenn xamul ni mu toll waaye Muhammad doo ko gis mukk loolu lu muy wax yaa ayuha nabiyu hey yow kuñ solo ki yaa ayuha rasulu balig bam jeex ngay fekk ci alquran waaye yaa ayuha Muhammadu xamut yaa Muhammad amut turam wa nag ñëw na ñeenti yoon waaye boo ko fekk rek bu tur ñëw garaat ba tegu ca wala garaat ba ñëw tur wa war a ñëw Muhammad ñu ne ko kan la mu ne rasulullah mu ne na maaw asdaw wa ma muhammadun lan la mun a illa rasulun qad xalat min qabli rusulu nusila ala muhammadin wal xaq balaa ya jeex kon nag loolu ngay fekk ñu def ko ak yu mel noona waaye turam wa ñëw nii rek fokk mu xam nga garab benn garab ba jiitu wala tur wa tur wa jiitu garaat waaye mënuñoo mënuñoo mënut a ñëw moom kenn mukk moom kenn fukk ak juróom-ñaar la yàlla jagleel dëkkam ba moo gën ci mbooleem dëkk yi dëkkam ba la yàlla jagleel def fa néeg bi jiitu ci néeg yi muy kaabatal musarrafa inna awala baytin wudia linnaasi lalazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin tuddee nañ ko bakkata ndax fa la ñuy daggee doqi kàccoor yi maanaam tabukku fii anaaqu jabaabira mi mbàyyi ko ci bakka mun nag kon muy maanaam mooy mooy moo jiitu baytul maqdis muy maanaam masjidul haram laaj nañ ko yonent bi moom kaaba gi lu fi jiitu mu ne ko kaaba gi jiitu na ko fi ñeent fukki at kon inna awala baytin wudia linnaas lalazi bi bakkata mubarakan hudan lil alamin mu waxaat di tagg di tagg dëkk ba awlam nu makkin lahum haraman aminan tujba ilayhi samaratu kulli shay'in risqan lépp ma ngay tudd dëkk ba dëkk baa foor ba yàlla gënca laa uqsimu bi hadha al balad wa anta xilun bi haazal balad wa walidin wa ma walad kon dëkkam baa gën ci mboolem dëkk yi muy Makka imaamu Saafiyu ak imaam Malik wuute nañ ca Saafiyu Makkiyu la Malik Madina Madaniyu la ñoom ñaar ñi werante ku ca ñaari dëkk yi bu ca gën Saafiyu ne Makka gën ci moom la yàlla gëñ ci laa uqsimu bi haazal balad Makka gën fa la Makka fa la Kaabatul Sharifa nekk. makka gën fa la dox safa mar marwa nekk makka gën fa la maamam yëpp juddoo màkkaa gën fa la maag fa la juddoo moom màkkaa gën fa la alquran njëkk a wàcc iqra bismi rabbika màkkaa gën bañ ko fay génnee nangam ak nangam bañ génnee ko fa ba tax rongañ yee sottee ko imaamu maali ne ko li nga wax lépp baax na waaye ma dinaa gën benn aaya rek li nga indi ci ay aaya dafa bëri man benn rek laa lay wax yàlla dafa wax yonent bi ne ko yaay koo xam ne xamoo tànki gannaaw tànki kanam rek sa tey moo gën sa démb sa démb moo gën sa barki démb sa ren moo gën sa daaw sa déwén moo gën sa ren mu ne ko fu mu ko mu ne woon defe na ko walal axiratu xayrun laka min al ula te nag axiratu yonantu bi mooy madina ndax lañ ko denc te bañ koy génnee kat bul fàtte màkk ba muy jooy dafa ne yow yàlla génne nañ ma dëkk bi ma gën a bëgg yàlla nga ma yóbbu ci dëkk bi nga gën a bëgg kon màkk la yonantu gën a bëgg mais madina la yàlla gën a bëgg li yàlla gën a bëgg moo gën a for la yonantu bi gën a bëgg loolu la ko wax loolu la ko wax mu ne ko tamit yonentu boobu ngay wax juddu gaag yónni gaag yëpp tay ba bay àdduna bi tukki ko bëgg a seeti jëmmam rek ma dina ngoy fekk wala waa noom izalamu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru laha wastaxfara lahum rasul la la wajadu laaha tawaaban rahiman te loolu ma dina la mën a xamee kon ma dinaa gën ci dëkk yi kon loolu la yàlla jagleel ñaari dëkkam yi daal ñoo gën ci dëkk yi dëkk bi di makkatal karama dëkk bi di madinatul munawara moom kenn tabaarakallaahu mu hilif ko jagoo ko moom kenn ko am sallallahu alayhi su ko defee fukkeel ba ak juróom ñett yàlla def na jàkkaam ja gën ci mbooleem jàkka yi ba dafa daan wax ne salaatun fi masjidi xayrun min alfi salaatin fi ma siwaahu ila almasjid alharam wa ahlul madina yaquluna inna salata fii sax afdalu min alsalati fi lmasjid alharam biduni alfin ay qiila bi sabi miatin waa madinatul munawara dañ ne julli ca jàkkaay yonantu ba sax moo gën masjidul haram xëppee hut ko junne waaye xëppee na ko lu mat juróom-ñaar téeméer moo gën tamit tabarakallahu baytul maqdis masjidul haram masjidul aqsa yëpp jàkkaay yonantu bi mooy seen seet kon yàlla def na ko muy ci gën yàlla jox ko baay ji gën yàlla jox ko dëkk bi gën yàlla jox ko xibla ji gën yàlla jox ko tamit dëkk bi gën ci dëkk yi jox ko jàkk ji gën ci dëkk yi ci jàkk yi kon yonentu lu ne la gën la ci am dégg nga mu ne fukkeel ba ak juróom ñeent moom kenn la yàlla jagleel ba na sosoo ba àdduna bi tukki moom ak ay saxaabaam ci lenn ñu julli ñaari xibla yi koo waxati benn xibla aadama ba ci ibrahima Ibrahima ba ci Iisaa seen xibla mooy baytul maqdis waaye mu foofu rek Ibrahima moom kenn moo mos a julli jublu maanaam kaabatal musarafa ah muy masjidul haram waaye nag yonentu moom kenn moom ñaar xibla yëpp julli na ca julli na fukki weer ak juróom-ñaar ànd ci ak i sahabaam jublu baytul maqdis la ca des ci dundam lépp ñaar fukki hadiya ak ñett yiñ ko sant mu doon julli yooyu yëpp ci dundam gannaaw bi ñu ko wax yoo mi mi ko julli jublu ko maanaam kaabatal musarafa ba yàlla ne ko wa haysu maa kuntum fa walloo wujuhakum satrahu wax ko ne ko fa walli wajhaka satral masjidil haraami wax saxaba wa haysu maa kuntum fa walloo moom kenn ko am ba ba yaat na bitu kenn amatul lool su ko defee kon nag xiblaam gi moo gën ci xibla yi xiblaam gi mooy xibla gim gërëm fa la nu walli yanaka qiblatan tardaaha la ko yàlla wax mu boole ñaar yëpp ñaar fukkeelu mbay ga moom la yàlla jagleel téeréem bi tamit moo gën ci téere yi wallahi ni yonantu bi gënee ci yonantu yi dëkkam ba gënee ko ci dëkk yi jàkkaam ja gënee ko ci jàkka yi waaye waay turam ba gënee ko ci tur yi waajuram yi gënee ko ci waajur yi noonu la ko yàlla jagleelee téeréem bi moo gën ci téere yi 99 Algérie, à Kaolac, votre radio, 101.4. Notre collègue, l'honorable député Seyman Soussi, a lui-même le discours de